neex taalib yi nag dañ cee teg ay cadeau ak yi ngeen di def nii ku ci gën a dal le gën a leer le gën a neex le waaw ku yebu jëndal dolli jënd masi at jënd masi jën jënd masi keccax jënd masi kecci jënd jokkeer jokkeer waaw jokkeer def na ci jokkeer jëndal jokkeer lépp nga def ko ci ndax mu neex ku ci dàqale nag dana am loo mos enveloppe yaa ngi nii nam yàlla baal bisimilah ngeen toog sant suñu yaay sargal suñu yaay ak suñu yaay gërëm suñu yaay yaay booy nag ma ñaanal amal sa a amal laa taral sukk naa sa ron dina liggéeyal ndax nga man maa rawal nga ma raw samay maas ma ñu xam ne doom maas xam naa ne ma ñaanalee fam ma jot ci kon ma jël si leen ma yuutu nag yaa ko yor xam naa ne man yaa ma yar loo digal ma daal di def loo man du ko def. yaay booy sa xel ci man xam naa ko li nga daj ci man gis naa ko yàlla bi di yem leer na man yaa ma si gënal wóor na waan ba lépp ni sa law kër gi yëpp law su ma masaana yeewu yaa bay nga dagg say law. taxal suma feebaree dootoo ka fakiree te fekk waruma dootoo mën a lekk laa ko sori ma lor bul ma jege musiba dawal yaag balaa mu ci kenn gaare ba man ma man laa gaareeto ak biye maaka jebal ko sama yaay yow yëpp la yow yaay nga dem maaka ak marwa taaw xar xasani jamra war kaa bala xeer ma ziyaara sol ma ca taar ba nga dox sa suuf sa naan zamzam nga dellu si indi ñu zamzam maak sama yarak ñu naan zamzam nga toog ñu xibaan lépp ndam amin yàlla nekk ndax sama yéene yegg fàttewu ma la yow baay booy yaa ki ma sama yaay booy yow laa am man lépp lu ma am la yaa ko moom liggéey ba yor la naa góorgóorlu naa ba aw la naa liggéey ba yor la. macha allah tàcc leen ko baax a baax a baax baax baax am solo. macha allah maam seet moom it defal ñu benn taalif wax na taalif bu am solo ci yaay ak baay. sa maam daf maa mos a wax ne dañ ne yaay daa sonni ci doom mu ne léeg-léeg dañuy fàtte baay mu ne waaye ba baay di sonni ci doom yaay commencé gul nee na yaay juróom-ñeenti weer la tàmbali te baay ca ngoro la la tàmbalee ca ngoro nee na baay ca ngoro te nomante la tàmbalee sonni ci na yaay juróom-ñeenti weer yeeg nàmpal la séq ak doom di ko toppatoo baay continué di sonn ba doom sëyi wala mu takk jabar mu ne kon bu ñuy fàtte baay ci yëf yi la bokk yonent da koo wax ngir yërëm ko bisimilah nii dama am kiitu saa waaji rijaal lan moo fi jar nga àgg si jigéen ba yor sa gu baax toxol balaam ba jigéen ak lum la def ci jëf ju ñaaw taxul nga war dóor yow rijaal lu la war si yow te mooy nga koy dundal di koy bégal dekal ko dekoo te bum di mer yow rijaal yàllaa ko jël teral ko moom alxuraan ba noppi jël dënk la ngayon korek rijal rijal ko amwa alan disa layala wa mota mwa ci pep goor yere pep jigeen yow rijal bu med saga ak di khas bu get ayep fitam mon ker la bay ñew sa ker ngir ak bege rek yow rijal donte tamit sikina lol da mana toy di jekamer waye tam bu xosi kam gisali basi mom yow rijal tay lama gis nga def tax na ma am naka ci yow ku jël jigeen so sonar di tóor xeeb naa la ngir ma tóori jaal xanaa man jigéen ku koy teral ma naw la koy sonal safoo man lii xamee ko ci rijaal naa fi ñëwaat ba gis walaay kon nga xam ne ku dóor jigéen laa sama xol la te yow rijaal xanaa xamoo ne jigéen lépp lu baax la jaar ba noppi teg moo di yaay fonk koy rijaal xanaa xamoo ne jigéen lépp lu baax ci moom la jaar ba noppi teg moo jaar. macha allah am na solo. ak ci baax neex na de moom. macha allah kon nee góor ñi bu ñuy dóor seen soxna yi loolu ah jar naa bàyyi xel. dafa fay nga ñëw barkeelu ci alxuraan.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 ونجم وشجر يسجدان والشمع رفع ودعا الميشان ألا تدعوا مي ميزان وأقيموا الوسن بقسط ولا تحصرون ميزان وأودع ودعا لأن بفيها فاكهة ونقلوا زد أقمار وأعبد عزبي وراي عنوه فبأي آلاء ربكما تكذبان آه، فاطمة سين فاطمة خل حديث سين كي مجر سين كي جرنا تترو أنه هناك موم إذا فرق الروح عن البدن sayturo nafani ko keram mudi yadina o minal sama ilu bay ko saman mi salat sey hatil tolok yetti wote ya ibnu adam e yaw domi adam atarakta dunya ami dunya taraktaka yow ya bay aduna wala aduna la bay ya ibnu adam e yaw domi adam ajmakta dunya ami dunya jamaktaka yow ya dajal aduna wala aduna la dajal ya ibnu adam e yaw domi adam أقتلت دنيا عم دنيا قتلتك يو ياري أدنى ولا أدنى لري وإذا ودع زنفتك على المقتصد في كتنك نودي لنا أو من شمائل بايكو شمال بثلاثة حات تلوثية وته يا ابن آدم أي أدم آدم أين بدنك القوي ما أدفعك أنا سيارم يدقرني أنا لله منتي وأين لسانك الفصيح ما أسكتك أنا سلام بلرك أنا لله منتي وأين أسنك السميع ما أدفعك ana sa nopp yu mën ana lan la jëriñ te wa isaa u dema suñ ko déggee fil kuf ni buñ ko duudi ya dina oo mina shamaan ilu bay ko shamaan bi sala seexati tolog ñetti woote yaa ibnu adam e yow doomi in kaana su nekkee tuuba la ka texe in kaana su nekkee amaluka sa jëf tuuba la ka texe ñeel in kunta su mawlaaka jaan la dëggu amalu ko sa jëf xayran lu baax tuubaa la in kaana su nekkee mawlaaka jaan sa dëggu ajana wa waylun laka waay toroxtaange ñeel na in kaana su nekkee mawlaaka niiraan sa dëggu safara wa tas yaa ibnu doomi adam tasxab yaa ngi dem ila safaril baid ci tukki bu wa taxruj yaa ngi من منزلك سكر فلا ترجع سبب دلسي إليهم أبدا أبدا فوق فوق وإذا عمل سنتك الجنازة اليوم نودي لنا من الشمائل بيكو شمال بسلسي حاجة لغنية وده يا ابن آدم أي دومي آدم إن كان سنك عملك سجف خيرا لبا تراه خيرا ناقص لبا وإن كان سنك عملك سجف sarxan lu bon taraawoo sarxan dafis lu bon wa isaa wu di suñ ko tegee li salaati buñ koy jullee nuudiya dina oo mine shamaayi lu bay ko asamaan mine salasee waxtaloos ñetti ya ibnu adam yow ya mi adama kulu amalin amaltahu taraawoo bépp ya jëf boo jëfoon dañ ko gis fii léegi nii wa in kaana su amaluka sa taraw khairan ne gis lu bax wa in kana su amaluka sa jëf sarxan lu bon tarawoo sarhan ne gis lu bon wa isaahu ndax suñ ko dege ala sabaril xabri ci to bax bi nuudiya dina o min shama ilu bay ko shaman di sala tolok yati wote ya ibnu adam ay yow mi adam maa sudat min umri ana lan ga indaale ci sa dundu fi ma arabi ci fi nga وما عملت من وحال بنجه أمام إندالي في هذه الفخار تبينك وما عملت من نوره أنا بنجه لرغ إندالي في هذه الظلمات تبين لماي وإذا ودع ذلك تجي في اللحظة تبحبي نودي دينا أو نودي دينا أو يا ابن سلام سيعة تلوغنة تواتي يا ابن آدم أيو دومي آدم كنت نكونا على زهري جسمك فريحا دبوكري fa sirtu nga mujj fil azinan di jàq yaa ibnu adam yow doomi adama kunta ala zahri ci dahikan diree fa sirtu nga mujj fil batni ci sama biir ya ibnu adam yow doomi adama kunta ala zahri ci sama kaw naatiqan di wax fa sirtu nga Zakinan nga muuma wa isa at baru naasu gayus nga wane ginaaw nuudi yalina o ya ibnu adam e yow doomi adama ya habdi yow sama baka baqaytu ndax deng fi wahidan waahidan kese faridan nga wataraku wa tarakuka kabri, zulmatil qabri ci beneen damaayu bameel ok dañ ciy def tuuti mu xaatam maa ñëw joxal ma ko joxal ma ko. man damaa ndax ci sëñ Fallou Asta Gueye day wax ne borom xel mu rafet yoonam du gaaw ndax day def fu mu romb day rafet borom xel mu rafet nee na borom xel mu ñaaw nag tëfër tëfër nëmër nëmër tëfër tëfër rek fu mu romb sotti la poussière damaa sañ sa nag xool nga ma oustaz ak yu weexu tam yi léegi dafa am lu mu wax rek laa bëgg tuuti ñu def ci ay leeral moo koy waxaatal boppam duñ tànn yëpp bu njëkk dafa ne suuf lu mu wax bu njëkk bi yow yaa dajal adduna wala adduna la dajal. kañ la ko koy wax kañ la koy wax nit déglu leen de kañ la ñu suuf di wax loolu ñun ñëpp mën ak yéen ñi demagul ñi dem seen bos pare na ñun ñëpp a ci bokk li muy wax nii kenn mucc bu ci ci ñun te ku ci nekk appel bii da nga ko jot te da nga ko répondre par la force déglu nag lim lay laaj nga pare say tontu lu mu koy laaj. Isa. Isa faaraqal ruuxul badal. say suroo taqali ko ak yaram. waaw kay surux ak yaram bi ah. léegi nag su boobaa nit ki moom tëdd na mën mënatut waaye mu ngi dégg mu ngi gis léegi lan la ko suuf di wax léegi yow nit li tax suuf di wax ak yow yaa fi amoon doole ba tuddoon fi roi des arènes yaa fi amoon doole nekk sàcc bi tëj ñëpp yaa fi amoon doole nekk bandi bi tëj ñëpp yaa fi amoon xam-xam nekk sëriñ bi ñëpp gëm yaa fi amoon alal nekk ki ñëpp di sàkku ndimbal yaa fi gënoon a ñàkk nekk nekk ku ñëpp di xeet di la daw lii lañ lay wax xatal ta duniya waaw kay yaa jeexal àdduna wala àddunaa la yaa rey àdduna wala àddunaa la rey léegi nag ñu pare suñu tontu ñun bu ñu demee lu ñuy wax ñun ñoo rey àdduna wala àddunaa ñu rey su boobaa nga pare sa tontu su fekkee ne yow li ñu la santoon lépp jëf nga ko rey nga àdduna bu fekkee nag bàyyi nga li ñu la santoon ñëpp àdduna rey na la moom waaw damay wax ne kuñ ne nañ ko delloo ci yàlla te fekkut ko woon ci yàlla keroog ñàkk na yàlla ñaar dafa am doomu aadama bés bi muy ñëw ci àdduna ak bés bi muy dellu ci àdduna abal ma ma àll la boo ñëw ci àdduna say mbokk dañuy appeler yow jox la jooy ndax ba nga bëgg dégg li ma wax liir buy juddoo lu muy def lim bu ko defut mbokk yi du seen xel du dal te docteur yi duñ ko ba dóor rek ba mu jooy buy juddu day jooy loolu tasawuf ñoo lay wax ne doomu aadama buy gane àdduna day ñëpp loxo yi bu koy ñëpp day indaale maarifatu billah xam gi mu xam yàlla ak contrat bi mu signé ak yàlla moom lay indaale boobu bu yegsee mi ngi taxawee maqaamatu abdullahi ndax mi ngi doog a bàyyee ba xatatul kursi léegi nag bu yegsee nag ba am semaine ñu ngi ko commencé fàtteloo ruugaa ngi commencé pousser wutal nañ ko tudd tur tuddee nañ ko aaji seen kon commencé naa fàtte loola waree nga soxla say kon mu rabbi li koy taj diit nga léegi nag foofu noonu bi nga juddoo yow ba nga yuuxoo nga fàtte contrat ndax bi nga yuuxoo rek sa loxo yi da nga koy tàllal yëf ya dem na fala budda bi sayqil murabbin nga doog a dellis ñeenti majsub yi boo bëggee am yàlla foog nga jaar jaar ci majsubul mutadaarik bi suluk majsub mutadaarik bi des bi ba ñeenti yi jeex damay bañ a guddal dégg nga loolu foog nit jaar ci léegi nag bi nga ñëwee dangaa jooy dangaa jooy say mbokk lu ñu def dañoo dañoo ree dañoo ree man gisaguma ko am doom seen waa kër di jooy moom mucc na ak jàmm alhamdulilah ah macha allah ku ñaaw ki maa ngi doog a ñëw ku ñaaw ki ñi naan ko rafet ki ñi naan ah jëkkër la ma indi ñi naan ah moom kat nangam la ma indi jabar la ma indi di ree yow nga jooy boo demee boo demee say mbokk lu ñuy def ah bi nga ñëwee luñ defoon boo demee yow loo war a boo reewut perte nga loolu la wax kon boo reetaanu rek yow perte nga loolu la chaque jour kuñ ne nañ leen ko delloo ci yàlla te fekkut ko woon ci yàlla ñàkk na yàlla ñàkk na yàlla demal maa ngi jéggalu de dafa am solo de ci man kaay kaay pare gu ma kaay kaay kaay taxawal may ma rek hadis bi waaw dama jamaxta dunya am dunya beneen bi mu ne yow nit ki ndax yaa dajal àdduna nekkal président wala ngay buur ñoo ëpp mooy ci àdduna ñëpp mooy ci àdduna seytaane daa ñëw marché daja fag yonent yàlla Insa Insa na ko loo mu ne ko damaa yor ñeenti marchandise de di ko jaay dama koy wax ci wolof rek dégg nga ñeenti marchandise di ko jaay yonent yàlla Insa ne ban ngay jaay bu njëkk bi koo koy jaay mu ne ko commerçant yi mu ne ko looy jaay jaaykat yi mu ne ko wor wuruj da ngay dem fii ci tëli bi ñu ne la kaay ma jaay la boolu mango ne ko juróomi mango laa këyit wu ngand ci suuf benn ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس صفونا وإذا اكالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون قبل المبعوث حديث بيجي في النفس كون نباين لو خير kon yaa dajal adduna am adduna la a dem ci adduna bés dana ñëw rëdd bi rek ngay am ñëpp ko bokk bàmmeelu ku am ak ku ñàkk ñëpp ko ñuloole rëdd bi rek kañ ko suuree nii ndax daa am xaalis amul nañ ko suuree nii ndax daa ñàkk amul ñëpp ko bokk kon jamaxta dunya am dunya jamaxta ka suuf yàgg yàgg mu ngi lay xaar min xalaqnaakum wa fiiha wa minha taaratan uxraa kon loolu ñu bàyyi ko xel dañuy tëb buñ demee nag bañ tëral ko nag di ko sang nañ dem ci sang bi ni yaa ni biñ ko sangee noonu ya dina oo di salaat say maa toloog ñetti woote yow doomi aadama bi ay na ay na ba dama tam xal yi waaw ana dan la jëriñ tey boo lisaanu kal fasin ma asaktuka salamen bu leer ga ana lan la mën a tey oo ay na uslu kal samihu ma ak fanaka sa noppi mën a déggee ana lan la jëriñ tey bu lay sang ki lay sang mu ngi yàkkam ci ci bomb rek te boobu yaa ngi recevoir yow yaa ngi recevoir ay question yoo xam ne yu métti la biñ lay sang yow mi dee yow mi dee biñ lay sang kooku bi muy sotti ndox mi te yeneen ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na métti tuddee métti dana jàpp nit ki ba bu ñu koy sang métti tuddee du ko bàyyi te fekk ndox yi koy njëkk dal day mel ni kënu kënu bu ñu dóor nit day mel ni ay yet yuñ koy dóor moo tax muy aaye ne ku faatu bu leen koy jëkk rek ko ndox nii sotti ko ndox mi ndànk ndax loolu nga koy sotti métti ci sukuraat bi da koo jàpp ba da koy yëg day métti ci ndax métti ci bi yéen ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na ko ba couleur boo gis ci àdduna jëmmam na ko bi muy laata faat xam nga nu mu mujjee moom yéen ci yàlla Muhammad ndax daf ñoo jëlal 99 yi ci sukuraatul mawt daa mujjee naan laa ilaha illallah inna lil mawti la sakaraat لا إله إلا الله إن للموت سكرات خدنا الفراق نان عليكم بصلاة وما ملكت أيمانكم لولا ينتي بي واخ بفات ما ننتي ديك جولي تا نين يرم نين يري لولا ينتي بي دي موجي موجي ديك دا بروم خام خام بو نه دا فا ملني nga jël xar diko fester rendi woko ni mi metti ci mom amna ko xamne dafa nek jëlal garab gi deug yi gëna soxor nga bëss ko ci xar wala fas wala mbam ba da jëpp dugg nga téy deug di xëc di dem na muy méttee ca moom nee na sukuraatu dee ko gën a métti am na benn xale bu faatu woon yéen yàlla Iisaa moo ko dekkiloon mu ngi ci duratu naasihin bi mu ko dekkilee daf ko laaj yow bi ngay faatu xale nga lan nga def ba bay jaaw mu ne ko xanaa métti dee métti dee moo jàpp sama yaram yi ak bi nga fëggee ma yaakaar ma yawmal qiyaama taxaw moo tax ma bay jaaw yow ma yejax la wil daanu siiban kon ñu bàyyi xel loolu beneen bi ci topp mooy mu ne ko ana sa saya sa lam sa yaram sa làmmiñ bu leer bi doo wann baat yaa rambat jëw yaa rambaaj wax barki dembu ne rambaaj fiñ ko tek ak fi yalla indi da wuté yalla daf ñoo wax rambaaj lu yomb lu yomb lu yomb rambaaj ñu ne yalla lan moy rambaaj mu ne manaain li khayri muqtadin asimin utila ba'da saalika sanimin ku la dàq bi ak regaju ak pis ak lamsal ak ku tuddu kumba nga nan ko faatu ndax bu ko jëw ak ku musor ba jek nga nan ko borom musor gi borom kumba si borom pati si fekk nit koy romb nga xamne mali la tuddu nga nan ko ngor lolou yep neena ci rambaaj la bok te alquran da tere ngay tuddee nit ki tur bu rafetul mu ñu tuddee ko mohammed da ko tuddee neneen alquran da ko tere wala tanaabasu bil alqabi, bi sa ismul fusuuqa ba'dal iman. ñu bàyyi xel loolu kon ana salaam nañ bu leer ba ba ku la tooñoon nga jaay ko doole wax ko lu métti sëñ Babacar si nee na balaa nit di waat ne reyuma nit na bàyyi ba yomal xiyaam ñu àtte jaam yi ku nekk dem kër gi nga war a dem su boobaa te nit waxuñ la ne kii liñ ko wax moom la doon misère ba dee nga doo ko waat ne reyuma nit jamoo ko baat ba mu dee kon bàyyi leen xel loolu wax yeneen ci yàlla ma xam nee na bi ma gàddaayee damaa gis jëmm ju génnee ci bunt bi mu génnee rek ki saase daa bëgg a duggaat ci bunti bi xajut mënta dugg mu ne Jibril lii moom nu mu demee kii ci bunti bii la génnee mu ngi bëgg a duggaat mënta dugg nu mu demee Jibril ne ko lii mooy kàddu wax wax buy génn day xaj ci làmmee ñu génn ah te buy dugg dafay dootul mën a ñëwaat li ma leen wax nii bu ma ci waxee penalty yi balaa ma koo téyewaat day jafe ndax ñëpp a ci jot moo tax yàlla teg làmmeñ wa lisaanan wa safatayni ba day naaw na ji day ni kon nag kat falaa iqata xamala xabat léegi nag ana sa loola ana sa loola kon nañ bàyyi xel di jéggale tey jëlale suñu ko toppee hadis bi tari mi day jeex te du jeex tari mi day jeex te du jeex léegi dañuy dem direct bu ñu suulee nag lu la suuf bi wax buñ ko suulee bay dem nekkoon nga sama kaw di puukare te yaa sama biir bi jàpp nekk ci kaw rek suuf rek yow boo xëyee sa ngoon ba suba ba ngoon jot ci ku lay nangul ngay yendu ana diw ku koy nangul dama koy nangul ana diw ku koy rek ku lay nangul ci ngay xëy dégg nga yow góor nga xëy ci diil rek ci diil rek doo nga doon jula doo jaay xaay mu wér xar mu soj ngay jaay xaay mu feebar xaay mu waaj a soo jëlee instant bi ñu bëree ngi jël seen kii di ko sol cox yi bii day funki taxaar mi du suur nga xam ne xaay mi bu doxee tuuti tànk yi day bañ mu sukk soo ko yóbboo sa kër xar bi bu toogee ginnaaw bi day xelli rek moo robinet na mbedd yee yem yëpp bàyyi woo ko xel jaaykatu ngooñeek jaaykatu gerte yi dama dem Gàmbi jamono yële ñu may wax ñoo xam ne seeni saaku gerte dañuy toj ay birig du ko ci dugal toj ndax ñoom dañuy taaraan taaraan wax nañu si daxaaji Maalik bu bay li woon gerte daawu ko bees da koy tànn par doom ndax bañ xeer bu mu beesawaale kon bàyyi leen xel loolu تيرنت مون ان العبد اذا ودع في قبره وتولى عنه اصابه حتى انه تسمع قرع عليه حتى هما لكاد فيقيدانه ثم يقول ما كنت تقول في هذا الرجل محمد مان جاي نيرت وور ني جاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هي جيغلو صلى الله عليه وسلم yonante alayhi salaatu wasalaam nee na ilawo naka ñëw kaala nekkoon na in kaana xanaa defoon nekk yawmal qiyaamate xeraw ben panto axraja gëli na say an benimir min jaanama bokk ci waa jaanama ismun toor xareeson xarees min waale doon xaka mu gën a rëcc joti loxo ak dowaayam xëy na samaay diggante asamaan wala te asoose wala door moom dëgg mu demee ca jëlet ne ba qaalo mu ne Ibrahima Ibrahima anta zahaba mu dem inahum ci ñoom fa qaala mu ne ko wa asarum mu gëne awalan mu dinde taali salaate ku bàyyi julli saaniyan ñaareel be wa sakaate ku di joxe asaka saalisan ñetteel be bilil waalidayni di sa ñaari waajur rabiyan saalisan ñeenteel be saari xamre kuy naan sangara rabiyan juróomeel be inahum ci ñoom fil majlisi nga ne si am na solo Ah, kooka nag nañ ko bàyyi xel ñamiy coob yàlla nañu yàlla musal ci ñamiy coob ñu bokk ci ñamiy romb macha allah dañoo bëgg mu xaw a gaaw awa jonn bay jeg bay jeg moom it ñëw defal ñu benn xadis awa bu ñëwee defal ñu taalif bay jeg ñu bàyyi xel ne xale yi di wax am na solo lool am na solo lool macha allah

fa mu jibril jibril ilaina tasabu alaman man ya haris ya haris ya haris ya haris waliman talabtu ala nanga isaku sakku fa yaqulu mu wax aslibu may nafari juróomi kuréel saaniyan tariku salati ku banya juli manu ku jo asaka hakku walidaini, kuy gidi sa saari bul xam rek naan katu zangara al mutakalam fil majlis ku wax ci biir jàkk ah, macha allah wax ci jàkk baaxut rawatina ngay ree ndax reetaan ci biir jàkk lëndëm lay doon ci biir bàmmeel kon awa jonn na ñëw awa jonn ak kuy gëdd sa ñaari way jurit nee na loolu baaxul ak bàyyi julli nee na baaxul baña joxe azaka yi baxul azaka yi senegal nag jaaxal na ma da ngay wara joxe 1 million wéccé ko 10000 taxaw ci mbedd bi est-ce que loolu la diiné wax xana oustaz ci dañ ci léral bismillah jamono njaaxare yi jamono njaaxare yi lépp tawat la tawat jiko sax moy fune ne yàlla jamono njaaxare yi lépp tawat la tawat jiko sax moy fune ne jamonoy tey dinaa fi wax li ma fi seetlu lu ne ci mbon di ngeen ko dégg lu wér la. jamonoy tey dinaa fi wax li ma fi seetlu lu ne ci mbon di ngeen ko dégg lu wér la jamonoy ëppalante mooy ji ñu tollu ala lay buur di ba ne mooy suñu yàlla. jamonoy tey la góor gërëm ne jabar la di seyal góor du lépp jax lu bi sax la. jamonoy tey la lesbienne du fiy daagu ñu ci néeg jigéenu ne ñu sey la. jamonoy tey la kenn talut doomam ngir giiroo alal ku xeelu ma am la jamonoy dagg mboq mooy ji ñu toll alalay buur bi ba mu ne jamonoy dagg mooy ji ñu toll ku ney say bokk ñooy sa noon ya sonal la jamonoy tey lu ndaw ndaw it amee na far mu di góor mbaa saxi jigéen ne lu xew la jamonoy tey lu yàlla digle ñu lànk lu ñu neex rek ñu def dawuñ meru yàlla jamonoy tey sëy bu yàgg amum at lu ñu fas weeru ni mu tas ñu ne cat la jamonoy tey jamonoy jaay sa bopp lañu tollu fukki góor xeeb nga ci semaine ku na xam la jamonoy tey la bët di gis lu ko loqi te du musa luqeeku ngeen la bam ca lu bon la jamonoy te ba ëpp mu ngi nii ndaxte soxla la jamonoy tey jigéen balaa a génn dafa sol gu bon gisul meru la bon gi la bu ci ndaw ñi fukki at rekk am ko xam na lu bon la jamonoy tey jamanoy tey la mbon gi law ba ci ñi fukki at rek ka am ka lu xot am ka am ko xam na lu bon la jamonoy tey ku yan jaboon ne ne tiitu du ko am xel de mbaa ku réere la xew la téléphone yaa ngi ndaw ñi kon bu ne lañ xam lu ne lañ cay dugal te lépp lu te lépp elem la groupe whatsapp it bu nekk ñu bokk lu ne lañ cay jëlee te la ëpp lu bon la jamonoy njàqare ngi lépp tawat la tawat yi jikko sax mooy fu ne yàlla jamonoy tey ku am alal te ne góor la ku yoru tus dinañ la ji lu ne dam la jamonoy woppi góor la ñépp la jàpp jamonoy xol yu dee ba kenn duñu yàlla jamonoy tey nga gis ku dee dee ko xamul tus ne ca kaw tiim sëriñ sa ndaxte alal la jamonoy tey ñàkk a dàkk du tee sëy ku neex sëy ku am bu yàq lu bon la jamonoy fitna ji ñu jóg la ak xel ku ne daw jëm ca kenn xalaatu ja yàlla alalay tax nga gis ku cay jexe doomam ñu defub dof mu am alal te ne góor la alalay tax nga gis ku cay reyi soxnam wala saxi doomam mu tey fitis lu fi xew la ak jamonoy tey la nit di dee ba ñu suul ko li tax koy sulu ngir xiram lu ñu gis la am na ñuy tijji gémmiñ nga di fa dugal am na ñuy dagg lañ ko sàngee lu ñu gis la am na ñuy dagg lamiñ nga wala baaraam jamono gi dee du tax ñu musal la jamonoy tey dof ci sax du la muccal ci la ñuy jàpp dof ñi di firee jëfi nit la nit a koy jàpp dagg cëram ya yóbbu ndaxte ndigal la jamonoy fitna ji ñu jubla ak i xel ku ne daw jëm ca kenn xalaatu ca yàlla jamonoy tey la noon ba jekku ya bu di Iblis daan na yóbbu na ndam la ne amatul benn noonu a ko jublu fu mu oote dinañ ko uyu ndamam la yal nañu mucc ñoom njaboot yi ñu toog yal nañu sax ci ñoom ba yegg ci. macha allah macha allah ah nga ne la wala kumba waaw awa nga ne jamono ji ndaw ñi kon bu nekk lañ xam de. téel ma ko nga ne gars yi kon bu nekk foofu waaw foofu daa am solo de. jamono tey. waaw ndaw ñu kot bu nekk la ñu xam. te lañ cay def ca biir lépp ëlëm la. tey. tey. man seema laay def. bisimilah macha allah wax na am solo tàcc leen ko bu baax a baax a baax. bokk na ci li ma ci jàpp mooy ku amut ñu tam la. yéen mag ñi mag mag ñi laay laaj ndax mos ngeen a gis kuñ tam tam dëmm borom xaalis bu ñu tam dëmm borom xaalis. yéen mag ñi laa ko laaj mag ñi maire yeeg paa yi kuñ fi mos a tam rek ku ñàkk la Oustaz Alioune Sall mos nañ koo laaj diw kat dañ ne dañ koy tooñ ku ñuy tooñ mu ne jeex na diw kay dañ koy dañ koo tooñ rek nañ bàyyi tooñ waay kooku kay nañ koy tooñ ki ñuy tooñ daal ñi koy tooñ nañ bàyyi tooñ mu waxit ci lu am solo mooy xaalis bu lew doon naa wax ci benn wéy ne seytaane ngi ci nit ñi waa ku bëgg a baax mu ne la roof bu la wéñee nga yëgg suuf mu kaamil la moomu ëllëg dégg nga wax naa ci tamit ne li wax ne dërëm bu sell da lay musal dërëm bu nëx da lay mbugal te du la xiir ci li lay musal da lay dugal naari njaxiit kon yooyu daa daa bàyyi xel kon soxna si am na solo macha allah kon ñu ngi jàll ci ko ñu wax allahumma lakal hamdu kullu ولا تسكر كله ولا حول ولا قوة إلا بالله واحد أحد وصلي وسلم على نبي رحمة وعلى آله وصحبه ومن تبعهن لهم بإحسان إلى يوم الدين أيها الإخوة المسلمون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Pambatah tubabi ye unyubum sibat dinyudiri. ñun kudul bàyyi si abdul ahad mënoo ñoo iri moom mi suuxal toolu lislaam si ñakam ba mu naat xañ tubaab bi baat àngale bi moom sañul bàmba wax mu naan ko am sori baat ana lu tax xasiida yi di yëngal suñu xol li rawatina si nit yi dafa fekk rek bu ahmad daa di wax gaa bu ahmad daa di wax yëgeet day firi xol ak xel bi naanu doonte day caax Il est l'élu, l'absolu, l'écrivain et le pilulu. Le convaincu, convaincu, les invaincus. Le connu, bien le connu, mais le plus connu, Ahmadou Bamba. Le crack fait craquer le soi-disant crack. Il a été parfait, si parfait, et la victoire, il nous a remporté. Et nous a amené le café Touba, bien accompagné de Dieu le difficile Touba. Cher Ahmadou Bamba, la multiplicité de ses qualités a fait qu'il soit cité parmi les plus aimés et douleur de la cité. Cheikh Ahmadou Bamba, le père de Saliha de Bara et de Mouta est connu sans publicité. Ma prime qui s'incline face à la grandeur de son âme. Faut nous voir nous l'islam marqué dans sa dernière âme. Sa tempe nous rétalit pour nous jafé jafé yéhané jam. Il répond présent toujours et pas souvent. Julit idun wote waluba al-muntaha takamlu. Lui, il est l'omniprésent à l'humanité éprouvant. xewal bu borom bi la kon nañ ma seen the left is my voice and Islam for your choice and muntaha generosity is celebrable and I love for you won't be regrettable because was an admirable level but is honorable il est la parfaite incarnation de Seexul Xadim si nekkin jëfin la bàkke saxal moo tërim wajatul